jaaraama maam jaara ko yaka waral sa doom ra jigéen loolu xaw na billaay mel na ni yàlla jigéen loolu xaw na sona jaara jaara sona jaara bu sobaale kenn maam jaara sona jaara jaara wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi su ngeen déggee bàkku maam jaara boobu xam ni jot nañu ndigal ci Cheikh Mamadul Muntaxa ñu ngi ñaan sun borom bàyyi ko fi te yàggal ko lool ci kilifteefu sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Cheikh Njool moom Cheikh Moustapha moom sëriñ Basiru daayira xitma ngir maam jaara ñoo am mbégte di leen woo ci ngoontum soxna jaara mii ñuy amal le 7 janvier fii ci wakkaam baya ngir waajale ko nag bisub soxna su tedd soosu muy soxna jaara di màggalu poroxaan bis boobu nag daayira xitma ngir maam jaara nag ñu ngi woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah di leen woo nag ci ngont soxna jaara jooju nga xam ni mooy ndey sunu yaakaar Cheikh du Bamba soxna jaara bisam nag bisub diine la waaye bisub lislaam la woo nañu ci ñépp ñaan nag ku ci ñëw soxna jaara sedd la waaye nag ku dëpp nag boo seddee sedd say mbokk ma jël kaddu gi jox ko nag Cheikh Abdou Mbeng mu woote nag ci tuuru kilifa yi ak kilifa aada yi nekk ci biir Wakam. sëriñ Modou Mbuub jërëjëf kon bis baa ngi noonu muy sunu bis nun mbokki julit yëpp kon nu ngi tàmbalee woote bi ci ki nga xamante ni mooy imaamu bu Wakam muy El Hadj Babacar Diagne ak mbooleem ay naayimam ay ulamaa yu Wakam yépp ñu ngi leen di woo di woo coutume bi nga xamante ni jaraaf yu sundooy moo ko jiite ak mbooleem jaraaf yi nga xamante ni ñoom la àndal ndey ji réew yi saltige yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo monsieur le maire Abdoul Aziz Gueye ak conseil municipal bu commune Wakaam yëpp ñu ngi leen di woo di woo mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk Wakaam yëpp mbooleem responsable politique yëpp di yëngu ci wàllu politique ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo ñi nga xamante ni ñooy ndeyu mbootaay yi ñoom it ñu ngi leen di woo ci bis bi xam ne daal bis bi bisub maam soxna jaara la maam soxna jaara nag ñëpp ko bokk ndax mooy ndey Serigne tubaa kon ñu ngi ci woo ñëpp Serigne moodu kon ñu wàccee suñu kàddu foofu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp na mbokki taalibe yi ni ko Modou mu waxee sëñ ab dollu ci ñu ngi woo képp koo xam ni kii jëwlin nga ci biir Wakaam di ci jiital Serigne Doki Maar mi nga xam ne moo jiite fédération Murit ci Wakaam yi. képp koo xam ne kii jëwrin nga bépp daayira bu nekk wakaam muy daayira murit di daayira Baay Faal ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi bépp daayira boo xam ne bii tiijaan nga xaadir laayeen ñaseen yéen ñëpp ñu ngi leen di oo ci suñu bis bi rawatina nag mbokk taalu yi di xam ne ne bis bi ñun ñoo ko moom bisu jullit yi la bisu soxna jaara la képp koo xam ne kii yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasul ñu ngi lay woo ci bis bi ñu ngi ciy oo ñëpp képp waxam xam kii yaa ngi yëngu ci diina daal ñu ngay ooj suñu bis bi di ñaan suñu borom may ñu fekkee kook jàmm tal ko te ñëpp ñëw teew ci jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe yi ñu ngi di ziar mbokk jullit yëpp mbokk wakkaam ñu ngi di ziar baax a baax a baax jërëjëf jëwrin ah alhamdulilah rabil alamin li première édition la daayira bi nag sëñ Abdoulahat Mbacke moo ko tuddee daaw sa màggal Poroxaan bi ma suñu première édition ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax programme bi nag incha allah képp koo xam ne da ngay yaakaar Serigne Bassirou Mbacké ñu ngi la siy woo képp koo xam ne da ngay def ñu ngi lay ñaan bés bii nga jàppale ñu si ñu Serigne Bassirou kese lañ am te bés ba incha allah am na programme boo xam ne dañ ko établir waaye bi gën a important nag maanaam mooy don de sang bi nga xam ne incha allah ci la bokk don don de sang bi huit heures lay commencé incha allah te yaa show ñoom ñoo ñu koy defaral ñu ngi ñaan mbokku taalibe yeeg mbokku julli yëpp ngeen jàppale ñu suñu ngont gi moom lañu am si bakki sëñ Basiiru jërë ngeen jëf asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi woo <clears throat> suñu moroomi ndaw yi ci bis bi muy waajal ngontu maam jaaro bi di ko waajalee poroxaan bépp ndaw bu nekk wakaam bépp daayira ndaw góor yàlla yi baay faal yi ñu ngi leen woo ci bis bi ñi nga xamante ni ñoom lañ daan àndal di dem poroxaan ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ci bis bi ci ngont bi ñu waajalee ko poroxaan kon daal mu ngi noon bis baa ngi noonu ñu waajal ko fu rek lépp lu ci war rek ñu ndaw ñi ñu amee ko incha allah. bisimilahi rahmaani rahim bis bii xam ne mooy conférence bi ñu woote. le 7 janvier. di si woo ñëpp maa ngi woo daayira maam jaara site avion di woo daayira maam jaara mameel daayira yi maam jaara yëpp maa ngi leen di woo bàyyiwuma kenn di woo turandoo maam jaara yi ñëpp si bés bi le 7 janvier bàyyiwuñu kenn bu loolu paasee may gën a soññawaat mbooloo yëpp maa ngi leen di woo di woo soxna Fàññeeng soxna Ngoma Saw soxna maam Saw soxna maam Marème Cissé xam ne ñooñu ay waaye maam jaara lañ dañ si jàpp chaque année ma kenn maa ngi woo ñëpp di woo maasi di woo kalabaasi avec yi xam ne bésu maam jaara jigéen ñëpp ko moom may soññewaat Njoogu Mbenga waa Njasan Faal bëgg naa ñëpp dem Poroxaan ren conférence bi jaar fu mu war a jaar sëñ Atumaan yéen ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant ñu jàpp baax jàllo bàyyiwuma kenn waa waajal bis bi wasalaam aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ah ñu ngi jublu ci bis boo xamee ni nii wax dëgg yàlla bis bu ñu sawar la bisu maam jaara loolu rek lañ yàkkamti woon barke sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan yàlla eggale ñu si ak jàmm ak salaam tey woo ñëpp nag ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ daan àndal poroxaan jigéen ñi jàmbaar yi waa soxna Ndiaye Cissé waa kër sëñ Malick Cissé ñu ngi leen di woo say jenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi woo soxna Awa Ndoye waa goxu maam jaara yi jàmbaar yi waa kër Pam ma fay jaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo góor ak jigéen xale yu jigéen ya waar fa kàll ay jàmbaar lañu ñu ngi woo ñi daan àndal poroxaan ñëpp bàyyiwuñu kenn soxna Juma Dieng soxna Mati Dieng ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ku ñu fàtte rek na xam ne war nañ la ko war nañ laa woo dañoo dañuy juum waaye nag ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo jigéen ñëpp jàmbaar yaa ngi wakaam kon nag bu kenn toog ne bu waxuñu ma ñu ngi woo ñëpp ñëpp a ngi si biir yàlla nañ ko fekke tatal tal ko jërë ngeen jëf bis ba ngoog woote bi Serigne Touba neewoon na ku ñëw poroxaan fekk ma fa baa ma fekk la fa soxna jaara nag mooy ndey murit yépp ngontu loolu sëñ abdul ahad mbàkke moom sëriñ seex njool moom seex musaa mu sëriñ basiru mooy teewe ngont li waaye bu ñëwee ah daan fi fekk nag ay mbokkam sëriñ xalil moom sëriñ seex daaru rahmaan sëriñ aboo xasida soxnaa su mbàkke bintu baara ak njabootu nag soxna Ami Mbàkke Cité Asecna bis boobu nag danañ ci rendre hommage bay Abdou Samad Sarr Baye ma fay jaw soxna Ndey Ba soxna Taning Fay ak magi yi nga xam ni ñoo daan ànd nag ak daayira bi dem ci màggalu Poroxaan ñoom ñëpp dana leen fàttaliku ci bis bi bis bu nu xëyee daanu jàng alxuraanul karim waaye huit heures nag midi nag am na don de waaye waaye bu demee nag ba waxtu ngoon gi à seize heures mooy mise en place waaye dix-sept heures jëm dix-huit heures kan mooy waxtaane ngontu la ah jàmbaari Cheikh Mamadou Mountakha kiy jàng fulku njaareem Cheikh Abdoulaye Joxumpa mi nga xam ne li mu xam ci soxna si waaye xam ko poroxaan ku ñëw nag dara du la bis boobu nag ñu ngi ci woo soxna Seyna bu Caam bay fàllu Cheikh Abdoul Hakim bu Serigne Bassirou ak ajaratu faj ñang ak soxna maam jaara madame Sayer Ndooy ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi waaye marraines yi ak parrains yi waaye waaye bu nu yeggi ci bis ba ñoom ñëpp bu nu teewee daanu leen sant gërëm leen ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di xaar ku ñëw nag ca ngontu loolu nag soxna jaara nag fat la waaye nag ku mu fat nag dootoo fanaan biti bis baa ngoog ngontum soxna jaara la set yow da ngaa set waaye waaye la set daal ñëwul wakaam fan ci wakaam place baya bu ko kenn wute wasalaamu aleykum wa rahmatullah ilaha illallah maam Seex la ilaha illallah la ilaha illallah